ñu taxawalee gouvernement bu njëkk bu président Bassirou Diomaye Faye ñi nga xamante ne nag ñooy njiit yu bees yi yi yor ëllëgu Sénégal ñoom ñi ngi ci liggéey bi lépp tënku ci stratégie boo xam ne dafa jëm ci suqali réew mi ak benn plan d'urgence li nga xamante ne mooy tënk lépp lu jàmp te ñu war ko liggéey ak itamit xayma liggéeyu nguur gi fi ne woon di républicain yi diggante 2012 ak 2024 muy ñett soxla yi gën a fës yoo xamante ne moom moo war a tënk liggéey ak xalaatu nguur gu bees gi naam sax sénégalais yi faw nag nga toppatoo li nga xam ne moo leen yitteel saa su ne muy affaire courante yi nga xam ne nguur gi da ci war a nekk ak ñi koy liggéeya la waaye lépp loo xamante ne mën-mën la ci jëm ci gouverner dafa war a tënk ci benn stratégie benn plan boo xam ne fii ak war nañu xam lan mooy li gën a jàmp ak fi ñu jëm te du tee lépp ñu tënk ko ci cëslaayu ni ñuy doxalee nguura ñetti weer bees taxaw na ñi nga xamante ne nag ñoom ñooy jiite waruñu daanu ci ndëggu sërëx bi nga xamante ne moo di liggéey rek te kenn xamul fu ñu jëm maanaam pilotage à vue alternance bu njëkk bi maanaam si jamono Ablaye Wade ba ci ñaareelu alternance bi ci Macky ñoom ñëpp am nañ ay per dafay wane nañ ñoom risque boobee tam mun na leen dal askan bi ñu bëri dañoo yàkkamti nguur gi def ay preuve militant yi ñoom tamit di wane li nga xamante ne moom la ñu jàpp ne moo gën a jàmp yëpp di ay pression ak interpellation yoo xam ne électeurs yi ñi ngi koy def ci kaw gouvernement bi rawatina nag ñi nga xam ne ñoo di opposants yi bees yi discours politique général bu premier ministre nag ñu koy xaar loolee sax la war a gën a leeral maanaam ngir wan askan bi fan la ñu jëm ak naka la ñu nar a doxalee nguur gi loolee nag li muy laaj mooy ne léegi gouvernement bi dafa war a yor nguur gi ci communication politique de masse maanaam di gën a xool ni nga xam ne moom la ñuy waxtaanee ak askan bi bañ ko waxtaan ak